publicité sur Tiaroy Info c'est une entreprise 3 menuiserie metalik Mansour dengan ngeen bëgg ay bunt waaw fer mu di métallique aluminium wala sax ay inox jege leen ni ñun waa menuiserie métallique Mansour ñu defalal leen ay design yu mutu ayib yaay tànn sa bu wow. neex waaw waaw si mu lay neex mën ngaa def sab commande design ñu defaral la ko ca na mu gën a muccee ayib dégg leen ma rek seen nopp ma wax leen lu ci dàkkati da ngaa bëgg ay rampante escalier ñu gën ko xam ci garde fou chambre à coucher mini salon wala sax nag ay plateau télévision ñun waa entreprise troisième loolee lépp dañ koy defar ak defarina gu mucc ayib wax naa leen ko ca ba muy teel yéenay tànn seen bu leen neex menuiserie métallique Mansour benn la fi ña nga féete sa caaro yi tali jàllo si suufu pont bi janloog kër sër yi boo ñu bëggee jot wala nga bëgg am ay information sunu entreprise bi di menuiserie métallique Mansour mën nga ñoo jot si 77 404 83 94 wala 677 975 75 95 menuiserie métallique Mansour la qualité notre force. Sen premier match mais ngeen jël match bi dédié ko fa Lamine pay lan ngay wax ci loolu. waaw loolu mom dama ci kontaan parce que Lamine sama sama mag la sama grand la man ne na naa di football Lamine mo fi indi mo fekk sama kër jom ma bari na ma ka jouer ma ñew jouer fi def jël fi coupe journal, coupe départementale dem finale régionale perte ko bon loolu mom vraiment buñ ko tuddé man sama man lañ ko tuddee man ni man mako mom quoi deug yalla sama xarit la boo xamee caare mooy Allah ma ma tax mo fi indi. loolu moom lu ma lu ma am la waaw moom moom en tant que entraîneur moom moo def coordonnées yi moom moo dox pour ma ñëwaat moom moo fi andi woon moo doxaat coordonnées yi mais boo ma ne ma gars yi dañu bëgg a ñëw seet si la pour nga ñëw yor équipe bi ah ma ne ko bu dee yow la daal maa ngi leen xaar mu woo ma na ma gars yi nañ fi ñëw ma xaar gars yi ba ñu waxtaan ba juboo ma ñëw fi waaw moo fi ñëwee boo du xaalis du laneen mais kóllëre boobu moo fi indi waaw liggéey bu ma liggéey bu ma sosoo bu bu ma bu ma defoon. mu def ko si man mu waat soxla ma ñëwaat yàlla def li muy def wax dëgg yàlla man ma ne ah comme que loolu am na newatu fi man dinaa ñëw quoi yor équipe. ah hmm, dama wax ni sunu papa la sunu maam la te chaque match da daan ñëw di ñu encourager jege ñu lool mu ñuy encourager chaque jour. kon tey bu dëddoo àdduna ñu ñu hommagé ko match bi franchement amuñu lu dul delloo ko njukkal loolu la ASC Mengo jël pour def ko comme que def na ko nag ah dañ koy ñaanal rek fi mu jëm. gënal ko fi mu jëm lan ngay wax si euh, man moom mun naa wax ci moom lu bari parce que sama père la waaw yàggul dara yàggul dara woo na ma ba këram ma ñëw mu yëkkati ay dàll ay godaas jox ma mu nekkoon père boo xam ni day jàppale si football bi képp ku nekk si milieu footballistique da lay jàppale même leneen même si leneen loo mënti nekk man moom sama père la woon. parce que du ma lay wax ni lu ma leer la damaa woo téléphone ma ñëw ba këram mu yëkkati ay dàll te ku def loolu rek xamal ni kooku nit ku baax la xamuma peut être damay dégg nii rek mais xam nga képp kuy football rek dala daan jàppale mu nekk suñu papa ju baax ñuy ñaan yàlla yàlla xaare ko àjjana yàlla dolli yërmande ci koom suñu pere daal amuñu amuñu lu ko gën daal vraiment mais nañ koy ñaanal rek yàlla defal ko jàmm bu baax a baax. Lamine Faye Lamine nga nekk coach nga nekk tey li nga xam ne moo di match bi ñu dédiyee ko feu Lamine ngay wax si loolu ba pare. ko. feu Lamine Paye. ah alhamdulilah man très sincèrement yéex naa yëg lool mais bu ñu ko dédiyee match bi jar na ko jar na sax dédiyee leen lu raw match ndax lamin Paye man xam naa ko bu baax a baax il a moo mon dirigeant au stade de Thiaroye et à Thiaroye même parce que dirigeant la boo xam ne amul xaaj amul woon xaaj ak seen ci ci ci ci wàllu mouvement sportif amul lu mu jéemul nag pour le développement du football euh, Thiaroye waaw wallaahi xam naa ci loolu. man bàyyi naa football bu yàgg mais moom nekk na sama dirigeant ba ba muy gaañu mu ngi œuvrer pour le développement du village donc alhamdulilah bi nit ñi xalaatee loolu dijee ko loolu ñu si sant yàlla bu baax mérité lu lépp loolu nag wax dëgg yàlla